Euh, l'un des gros points d'interrogation sur la liste des 23. Ouais. C'est sûr que liste bi buy génn ce sera voilà la la principale euh, préoccupation. am na am na ay sarax yu mu a def <laughs> parce que finalement. dafa mujjee stressant en ndax moom bëgg na ko. man moom dama koy dama ñaanal mu bokk ci parce que lu tax mooy Sénégalais yëpp dañu ànd manko te gis nga Pape Cheikh loolu bu amee da ngay jàpp ni ci nit ki la. gëm naa ni moo ci moom la. Mm-hmm. xëy na moom moo ko ji askan bi Kara damay laaj naka nga gisee j'espère que yaakaar ngeen ni ren coupe bi war na ñëw. parce que nag boobu ba tey ñu ngi xaar rek dëgg di xaar di xaar di que bi yoon dinañ ko indi waaw. waaw je pense que ni tey jii ñi nga xam ne ñëpp sénégalais lañ ak ñi nga xam ne ñëpp ñoom la euh, yàlla jox chance bi ñu war a dem défendre couleuru réew mi. Mhm. loolu rek lañ bëgg. Mhm. je pense que ni boo nekkee ci biir ci nga koy xam parce que tey jii ñi ci ne ñëpp bëgg seen réew bëgg réew mi am ndam bëgg population bi kontaan moom moo leen ci indi dafa doon nag loo xam ne ni ñu ko bëgg dafa bari équipe yëpp ko bëgg nation yi fay dem yëpp et tey lépp solo mooy li ma am habitude du wax faw ñëpp muy Kara Mbodj ku ñu woow ku ñu woowu la képp kuy sénégalais mm. nekkal ci ginnaaw équipe bi loo ci mën nga wax nga def ko pour équipe bi mën a am ndam parce que ñi ci nekk tamit wax dëgg yàlla ñu ngi def ay sacrifice yoo xam ne nii duñ ko bëgg a fësal duñ ko bëgg wane mais ñi ci nekk ñëpp tamit doon sénégalais bëgg seen réew moo tax ñu nekk ci donc na ci ñëpp gën a jàpp rek et ñi ci nekk comme ni ma am habitude di wax rek nañu def ba def lu ñu mënul ndax Sénégal am ndam. oh man euh, Kara gis nañu ni coupe du monde bi footballoo c'est mhm. mais cadre nga comme ni ko doyen lay jaaw wax. Mhm. man xam naa ni da nga doon ñaax euh, sa yeneen morom yi surtout les jeunes ñi nga xamante ne dañ doon frustré parce que footballoo. Mhm. amoon nga benn cri de cœur bi tuddoon ne lâche pas. xam ma lan moo taxoon nga indi cri de cœur boobu même su fekkente ni daanoon football. waaw je pense que ni loolu li tax mu ñëw mooy am nga groupe dafa doy te it euh, moom groupe bi ñu yor dafa doon groupe boo xam ne ku ne daa jàpp ni maa mën sa moroom maa war a fubal. Mm-hmm. donc boo gisee des fois ñenn ñi ñu frustré wu ñenn ñi kontaanuñu parce que bu ñu sañoon fubal dëggal seen waa réew donc boo ko doon gis seen visage man je pense que ni sama rôle li ma waroon. Mm-hmm. mooy waxtaan ak ñoom am na ci koo xam ne nii. bi mu waree football dernier match bi dafa ñëw à table la ma fekk remercier ma ma ne ko tax nga may remercier mu ne ma bu dul woon yow écarté nañ ma groupe bi bu yàgg. Mm-hmm. donc c'est des choses yoo xam ne. da koy def pas nit ñi xam ko. Mm-hmm. mais da ngay def parce que noonu nga mel. Mm-hmm. da ngay def ngir intérêt réew mi tax. et que faut pas lâcher. moo boobu mooy bu ma ci gisoon kenn koo xam ni mu ngi peut-être amul yenn capacité yu mu tenir li xew. dama ko ko doon tooñu naan ko faut pas nañu continuer donc façon de parler la woon pour gën a remobiliser équipe bi yëpp donc loolu moo ko na benn action tam bu may xaw a jaaxal tuuti contre mhm. Colombie mhm. Euh, benn instant jóg nga mhm. mel ni ku doon jël place Aliou Cissé dem expliquer ak moom équipe bi nu mu war a football dama bëggoon xam lan la parce que man boobu léegi amoon jot c' est vrai que barki dem rek ah, euh, euh, accordé nga ma interview mais tout le temps dama koy bëgg a laaj ma dama ko fàtte mhm. te je me dis que tey nga leeral Sénégalais lan nga jógoon dem wax Aliou Cissé jamono jooju parce que dem gisoon nañu yow rek yaa jógoon en tant que footballeur bàyyi sa place mhm. dem wax ak Aliou te pendant ce temps waaw non je pense que ni boobu je pense que ni na lu xewoon amoon blessure Youssouf Sabaly ñu waroon def changement changement wu Moussa Wagué Moussa Wagué donc ci loolu la rek jóg pour wax loo xam ne nii dina defar wala peut-être joxe sa xalaat ci lenn ni parce que may na ma ko mm-hmm. comme li may wax donc sekki nañ yenn relation yi mm-hmm. moo tax may wax que naan problème amul foofu mm-hmm. bëñ ak laam dañuy dëkk même ba ci famille da ngay gis yenn yoo xam ne nii day aw wante day am comme li ñuy wax le linge il faut que ñu laabee ko ci biir famille bi am na yoo xam day xew day des foofu ci ba mm. mm. yàqu ah, yëkkati wu ñu mm. te football moo demee noonu àdduna moo demee noonu ah, bon maam maam euh, juste avant euh, ngay joué sa dernière grande compétition mooy Coupe d'Afrique des Nations doot mm-hmm. nga football neuf match euh, dañ koy dañ koy rappelé léegi ñoom Iber wax nañ ko neuf match ak Kara ak ak Kalidou Koulibaly si neuf match boobu senegal am ci six victoires un match nul de deux défaites quatre buts encaissés te yow Kara bokk nga si ñi ñi nga xamante ni ñoo ñoo convaincre Kalidou Koulibaly pour mu ñëw est-ce que jàpp nga ni per boobu bu fa na bu footballoon coupe du monde Sénégal peut-être dina franchir capu premier tour coupe du monde parce que xam nañ tamit yaa Kalidou Koulibaly même si boo leen waxoon boo leen si biir terrain bi avec les yeux fermés mën ngeen jouer waaw c'est parce que xamante nañu football nañ bien avant muy ñëw fii yàlla def nañu bokk ci ñi nga xam ni poussé nañ ko wax ak moom pour mu choisir Sénégal tout en cherchant que ni c'est un défenseur boo xam ni mën na ñëw jël sa place mm. mais du xooluma ci sama intérêt personnel mm. njariñu réew mi la et que je pense que tey bu fekkee damay toog fii naan yaakaar naa ni su ma football loon maag Koulibaly coupe du monde dinañ passé deuxième tour boobaa damay égoïste hmm. parce que la yàlla di def kenn xamu ko mënoon naa football mu demee neneen hmm. donc loolu lu waroon am la te dañ ci jàng rek pour euh, séance yi nga xam ne mooy ñëw parce que tamit foo ko tey jii comme ni ma ko wax ñu reconnaître que ni Salif tamit hmm. def na coupe du monde boo xam ne nii bu baax donc comme mooy li ma wax rek bu ñu xool intérêt diw wala diw nañu xool njëriñu réew. waaw waaw l'intérêt national du Sénégal et c'est ça l'essentiel. vas-y Soraya. léegi man fi nga xamante ne foofu laa bëgg euh, ñëw ak yow <laughs> mooy comme par exemple euh, mois de juin si mhm. moom nañu dem CAN bi mhm. boo seetloo tey équipe bu Sénégal est-ce que yaakaar nga ne équipe bi instant yi pare na pour dem ci CAN bi est-ce que waajal nañ leen voilà effectivement est-ce que est-ce que waajal nañ bu euh, bu baax a mhm. baax su fekkente ne joué nga ak nga ñàkk joué ma joué ma ñàkk joué ma dem ma bañ a dem engagement yi ma mës a am bi avant ma ciy dugg moom la am ba léegi e que aujourd'hui je pense que ni équipe bi génération bi def na deux Coupe d'Afrique 2015 2017 expérience tey bu ñu koy wax je pense que ni am na lu bari lu ci am léegi donc euh, lu ci des moom Coupe d'Afrique comme li ñuy wax équipe bi ñuy xaar à chaque fois du ñoom la ñuy gis euh, au bout ñu euh, Cameroun bi ko jël hmm. gis nañ kenn xaaru ko woon mais je pense que ni tey jii Coupe d'Afrique li ko gagné je pense c'est l'envie l'engagement la détermination donc je pense que ni loolu bu ko ñëpp amee le Sénégal aujourd'hui a des qualités a des joueurs capables de faire la différence am hmm. mën nañ ci cité ñu bari tey ki yàlla jiital ci kanamu équipe nationale ci footballu équipe nationale tey Sadio Mané la hmm. xam tey ñu ngi koy ñaanal ci hmm. li nga xam ni moom lay waajal muy final Ligue des Champions yàlla na ko Serigne Touba may ndam ci loolu loolu lañ ko ndax tooguma ah, tous derrière Sadio Mané euh, on a créé euh, on a yaa ngi cay gëmbantu waaye Sadio jar na ko jar naa yeewu donc mm. hashtag bi mu ngi noonu euh, tous derrière Sadio maane ci suñu ay comptes yi nga xamante ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi mm. euh, euh, parce que Kara ni mu ko waxee loo gis ci àddina leader daf ci baax mm. noonu nga nekkee leader noonu la keneen ak keneen nekkee leader ci seen ay domaines et que Sadio Mané actuellement tout le monde a envie que mu yegg foo xamante ni voilà mooy loolu donc ñun ñu ngi koy soutenir ak hashtag bi nga xamante ni créé nañu ko tuddee ko tous derrière Sadio Mané naa ne yow itam ngay leader euh, ci li nga nekk waaw loolu la loolu la qualité yooyu la yàlla def ci man mhm. du loo xam ni dama ko bëgg incarner par force mhm. mais c'est quelque chose de naturel boo xam ne nii ci sama ci sama vie noonu la mel mhm. àndarleeg bi ma nekk je pense que ni am na rôle bu bëree bëree bëri bëri dans l'ombre bu ma fay mhm. joué mhm. parce que toll nañ fi jamono mu metti lool ma nekk ci mhm. blessure jóge opération coach bi woo ma ne ma faw nga ñëw parce que sama adversaire tas na te yow laa ci yaakaar bi ma ñëwee maa dajale joueurs yëpp wax ak ñoom li ma wax ak ñoom bi ma fa jógee maa dem ci coach bi défendre joueurs yi defar ci noonu la demee loolu la yàlla Sénégal la ñu nekk mm-hmm. ak nos réalités mm-hmm. euh, ñu bëri jàpp ne blessure bi du woon lu naturel mm-hmm. ay ah. yëfa ngi ci ay xonjom ay laal ay jàppal ay bàyyil ay dañ laa yàq yooyu yëpp dégg nañ ko fi euh, euh, gëm nga ni xonjom yaa ngi ci man de wax ah, dafa ngaan jël temps ma. dañ ko bàyyi dañ ko. question bee ko choqué. non non man je pense que ni tey jii. doomu aadama bi yàlla bu la bëggee da lay teg nattu lépp delloo naa ko ci ci yàlla tey it sëñ Bàmba dund sama xol donc je pense que ni tey jii àdduna bi li ñuy wax bari na man li may dégg bari na ñeneen ak ñeneen li ñuy dégg bari na wante comme li ma faral di wax jamono ji ñu nekk kenn deful kenn dara lu waay def boppam loolu moo fi ne donc sant yàlla euh, Kara tout à l'heure bi mu ngi ko doon wax di laaj ndax sa saison euh, ça a été une saison prolifique en tout cas bi nga nekkee Anderlecht ñu juste rappeler que tu as fait quand partie de l'équipe type mhm. des playoffs donc ça veut dire que quelqu'un qui a joué de janvier à mai c'est performance bu baax la yow ak Crépin Diatta yéen a nekk ñaari sénégalais yi bokk ci équipe type bu playoff man peut-être jàngat bi ma bëgg a am mooy yow sa relation ak Aliou Cissé boo xoolee ça avait démarré sur de mauvaises bases en parce que Jeux olympiques 2012 yi foofu déjà da nga fa génn am fa benn sorte de frustration ndax da nga bokkoon ci li doon joué moom mujjewu jël équipe bi ak Karim Séba Séga Diouf et puis durant les les Jeux olympiques joué woo comme titulaire tey encore relation bi demewaat ni bien que ne nga entre diggante bi xamante ngeen ku nekk respecté na sa moroom mais dañu nekk ci dëkk boo xam ne tamit dañu bëgg xale di dem si mag mm-hmm. donc situation bi demee na nii tey dëgg la opinion sénégalaise bi comme ni ma ko waxee boo defoon sondage. 70 ah. pour cent des gens veulent que Kara revienne en équipe nationale. la preuve xaaral mu dugal du dugalal pour mu coller. Euh, ak li ngay wax nii du sondage boobu noonu dafa lool duut ko ko ma xool. <laughs> waaw bisimilah rahmaani rahiim sama xalaat daal mooy Aliou Cissé war naa xoolaat euh, Coupe d'Afrique bi passé quoi Kara Mbodj boo seetloo. di arrêté yëpp bal arrêté yëpp parce que moo ko doon dugal boo xoolee ci coupe du monde bi am nañu bal yu arrêté yu bëri ay corner ay coup franc mais dara bee gisuñu benn kenn ku benn kenn ku ci jóg mbëkk ci bal bu dugg wala kenn ko xamante ne nii jéem na cee def boo xamante ne nii action aérienne bu normal moo tax ma ne moo tax a xoolaat bu baax war Kara Mbodj mu naan nationale parce que dafa am importance ci ginnaaw ci DRR yéen am na ci importance ak côté offensif tamit dama jàpp dafa war a ñëwaat équipe nationale moom soxlawaat na Kara bu baax a baax a baax parce que boo xoolee prestation coupe d'Afrique présidente bi avant coupe du monde bi ngay xoolee dafa def euh, benn coupe d'Afrique bu baax a baax a baax a baax moo tax waaw dafa ah, ñëwaat parce que depuis bi ma amee blessure ba léegi euh, benn instant Aliou Cissé war na ko mën a récupérer waat mu ñëwaat si équipe bi te man a ce que je vois dina apporter benn bii daal ci kii bi ci équipe nationale loolu da laa gis pour man Aliou Cissé war na ko dem jëliwaat. ah parce que Kara Mbodj kay ñëpp xam nañu ne c'est un bon joueur loolu moom Sénégal yëpp ñoo ko bokk seede macha allah. mën nañ ne am na xabaar mais tamit mën na li muy def daal macha allah. sama xalaat daal ci Kara ak sama gis-gis man man jàppoon naa ne Kara Mbodj daal am na place équipe nationale daal parce que. défenseur bu dëgër la boo xam ne saa bi nii moom dafay xare maxi bu moom maxi bu moom da xare ba mu jax teg gisuma daal benn erreur boo xam saa bi man si euh, tax na daal mu war a mën a bàyyi équipe nationale bi. waaw da ko war a yoon la daal mu woo ko man man laa gis man sama gis-gis parce que ni mu ni mu mën di téye bal yi di garder ak ni mu mën di rayantee maxi bi man ñëw na daal ma gis défenseur yi mel noonu daal. voilà donc Mame Fatou